Oh! Love is love, love! Love! Love! Le destin les a divisés! ay mbocc lañu woon di dondoo ci benn gox daw jàngu woon ndaalu all day wure carte xaalis wër fu ñu wëre daw ni talis bëgg tali lu yor dañu ko jox dox di jéem faq sàcc mango cerise limon ak si dem dem géej xuloo xeex suñu biir tëgg mbéj bëre temps booy suñu yëre dëgërlu noo lompoñ ëffalaa ki nga tooñ calcio koñoo koñ bande de copain na muñ dara néew bëgg-bëgg moor faama ibuloo móor saam ak yu ak lamin idi ak igor moodu faal ak moor ànd ak groupe xaj rëbb di visé cours yi révisé des suñu bopp dis gann bokka ma ko ndox lay dëbb ku xamoon fi ngay mujjee doo ci sonn this is life da ngay jóg rek dem ca waaye life moo ni mel sometimes mu jox la beneen yoon this is life ku nekk ak sa destiny nga bëgg ak li ngay am mën na bañ a nekk benn this is life gëmal dara na ci sañoon di jigéen la génn néegu góor hard life bég di dóor honnête brut la la yóor taxawaalooy sa payoor du foog li ci wóor lépp ci xaaj lu mun a teew na ko sóor même sax bu ne bàcc gàllankoor sax ak jóor toll ci puberté jóg xeex sa liberté mbootu mbedd sa fierté gaafiyee fi chégé bàyyi di piégé am ñu fi déviergé ñu bëgg tukki mu të dëkk bi dafa këddul scooter jaay bë c'est malheureux jox di làmbaatu yox ba am baatu loo làmb daj màgg ci mbedd buy tey di dajale soxlay àdduna tas seen jotaay yi kenn amutul jotu kenn xaajale suñu paas vingt ans lay de tasek som gaz ka foore ay blaze raconté ay fable port and paali coob ceeb bolot méttali ko ci Involestable. This is life. ku nekk ak sa destiny. ku xamul fi ngay mujjee doo ci sonn. This is life. ngay jóg rek dem ca waaye. life moo ni mu jox la beneen yoon. This is life. ku nekk ak sa destiny. nga bëgg li ngay am mun na bañ a nekk benn. This duma dara na ci yàlla joxe waaye fi gu sañoon di ci kenn ànd bu yàgg dëgg la waaye du tagg tas jëm nañu mag destin bu di ñu divisé responsabilité yi taxaw ñii taw dem kaaw ñii dof ñii jeel ñii eggali seen jàng ñii doxaan am gel ñii takk soxna ñii di jóg ak daanu wel wel ñii takk jóg dugg Babylone ci peel kii di traay li ni mel ay at yi at cool app ci armel ñii taggoog seen xel ñii fii bu rey citoyen soppi rebelle samp pikk dóor ci peel deseg sa kel nii la laaj bi tëddee yaa yee fii bu réel booy laa lay tegal yee mais après ñii nag ñu jëm mag ñii takk na ñii dugg jeel ñii xamatoon ay bureaucrate yore laar fàcc maria ñii colle bu ku leen gis bëgg leen a sarax ñii di ko faay pour jóg mu të lii la laay fi di joxe yaa Uh, yeah, man. And a buffet. It's This is life, connect us to destiny. This is life on your mental man, on your mental bro.